waa Kër Cheikh salaamualeykum waa Medina Fall asalaamualeykum waa Kër Maam El Hadj bu ñu santee yàlla julli si yonent bi sant suñuy wéyjoor ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi toog ñëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw tey nag. maa ngi doo a am surprise ba ma dalee jóg ba léegi te lii bettu ma ndax ku ñëw sa kër maam faa gis fi loo xamante ni dina sedd sa xol trop trop trop tey lii ma gis fii dal na sama xel du sama liggéey du sama ngóora du sama pas-pas waaye yëg-yëg bi nit ñi am ci man jaarale ko ci sama waa kër maam di kër Serigne Mor njaay daa bàyyi donc tey lépp lu ma yaakaaroon man xam naa ni dinaa ko am ndax gëm-gëm yii ma fi fekk nit ñu baax ñii ma fi fekk ñu taxawuma nii jox ma surprise boo xamante ni tey di sama famille maam si kaw ba ci suuf ma kontaan ci torop donc di kado bi nga xamante ni c'est le cadeau plus cher de ma vie donc euh, Nafi rëccuwuma li ma la doon joxee mission ndaxte yàgg naa jox nit ay mission bu ma demee du ma gis lu dal sama xel wante tey jigéen ñii ma fi gis association yii ma fi gis muy association yu dëggu association yoo xamante ne ànduñoo ak yow lu dul ci dëggu ak ci ngëm ak liggéey bi nga xamante ni moom laa la jox mission bi nga xamante ni mooy sama discours nga dawal ko ci ñoom moo tax tey ñoom ñépp ñu mën a taxaw taaral bés bii ànd ak teey ak sell amul yuuxu amul coow donc man maa ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu te kontaan naa ci seen toogaay ci seen taxawaay donc Nafi maa ngi lay sant di la gërëm di sant Maam Moor donc xam naa di ngeen di daj lépp suba ngoon guddeeg bëccëg seen staff bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen encourager ne lii ce n'est qu'un te sama début bi sama xel dal na ci torop donc sant naa leen sant naa ma. tous les membres yi nga xamante ni yéen a nga ànd ak ñoom tous les dirigeantes de mouvement de femmes yi nga xamante ni tey ñoo ñëw teew fii pour déglu moom ma wax ak ñoom si suñuy ambition yi ñu am fii ci Thiès tey nag bés bi dama ci am gan muy le docteur Ndiaye di koo xamante ni ñëpp meloon ni moom xiiroo du am ŋaayoo di am donc tey moom mën naa ni sax c'est fédérateur tey mu ngi xool képp fu mouvement nekk di jàppale président de la république bu dem fa taxaw ak waxtaan ak yow pour booloo àndandoo ñoom parce que tey ñoom ñoo bay waar ba ba pare bu dul woon ñoom ñun tey lii duñ ko am ñoom ñoo rafetal ba pare yàgg nañoo sonn si mouvement jàppale président de la république donc ñun tey bu ñu nekkee ay ndaw ñëw taxaw pour dimbali leen. jàppale leen gis leen suñu wet suñu xel day gën a daal donc docteur vraiment ñu ngi lay sant dina gërëm dina la remercier si sa teewaay di sant aussi sama staff sama membre yi nga xamante ni ñoom lay àndal di liggéey ak ñoom guddeeg bëccëg di samay collaborateur gis naa ni ñuy sonne gis naa ni ñuy dawee gis naa ni ñuy kërti kërti si li nga xamante ni mooy ce mouvement de développement bi taxawal taxawal loo xamante ni du un mouvement boo xamante ni lépp luñ ciy def mooy askan bi lépp luñ ciy def mooy jàppale Thiès lépp lu ñu ciy def mooy jàppale Sénégal te jàppale Sénégal mooy jàppale président de la république mooy jàppale le président mag yi Sall ki nga xamante ni tey boolewul dara ak wax c'est le président de l'émergence ñun ay ndaw lañ donc président dafa décliner émergence pour une durée bien déterminée fii ak horizon 2035 te horizon 2035 du moom moo koy jariñoo du sunu mag yi ñoo koy jariñoo du sunu yaay ñoo koy jariñoo donc yéen jeunes yi yéen a koy jariñoo te tey gis naa ni jeunes yi am nañ pas-pas trop parce que boo xoolee pourcentage liste liste électorale yi ñi ñi inscrire ñi ñi ñi bindu. Mhm. jeunes yi am nañ si part de responsable bu bëree baree baree bare te kat jeunes yoo xamante ni mosuñoo voté ñoo xam kenn ñoom tey président la république la ñu xam Macky lañu xam donc fekkee wu ñu élection yi la donc élection yi ñëw la ñu fekkee donc tey jeunes yi sont conscients que ni kat seen développement seen espérance nga xamante ni. le mouvement Siggi jot na de ko dessiner pour scruter l'écran du futur c'est-à-dire xool ëllëg lan la ñu war mën na jariñ suñu réew ak lan la suñu réew mën ñoo jariñ donc tey maa ngi woo jeunes yi nga xamante ni ñëpp am nañ seen carte électeur nañu jël seen i espérance ak seen i ambition teg ko ci loxo président de la république parce que président de la république dafa teg plan émergent te jeunes yi da leen tey jox part bu mag a mag a mag donc horizon 2035 président de la République du ko fekkee donc ñun ñoo koy fekkee donc moo tax ñu war cee taxaw jàpp si ba nga xamante ni dinañ mën a jox président de la république majorité électorale si législatif yii di ñëw nit ñi wax nañ ko fi donc législatif dafa important parce que législatif mooy baatu askan wi mooy baatu population bi faluñu président mais dañuy fal ay député yoo xamante ne ñoo ñuy taxawal si assemblée nationale te député yooyu bu ñu ko bëggee taxawal mooy député yi ànd ak président la république ndax mu mën a doxal programme waa Kër Cheikh yéen a ngi si bay seen waar gis nañ si inscription yi yéen a ngi daw di inscrire def ngeen même ay transfert indi ko si sama bureau de vote donc xam naa ne yéen a ngi may jàppale te nit boo ko jàppalee mu jàppale la jigéen ñi xam leen ni maa ngi seen gannaaw li ma tax a jóg mooy acteur de développement laa jigéen ñi fu ñu nekk seen association yu ñu am dinañ fi indi suñu doole indi suñuy financement jàppale leen na fi di àndal ñëpp da ngeen former seen benn cellule ngeen ñëw ñu toog finaliser pour financement bi ma leen war a jox ñu mën a xam ñaata groupement moom ngeen yor ñu financer leen jàppale leen ngeen liggéey donc waa Kër Cheikh waa Medina Fall waa Kër Maam El Hadj kontaan naa si yéen xam naa ni yéen ay liggéeykat ngeen te ku leen jàpp jàpp ay liggéeykat. man nag comme li ñuy wax rek néew ma fi pour naxaate néew ma fi pour digaate loo xamante ni du ma ko def li may digaate mooy li nga xamante ni war naa si mën a jàpp pour réew mi jëm kanam parce que man sama bopp ñor ma yéen yéen a ma ñor donc lépp lu ngeen ma wax loo xamante ni war naa si mën a teg sama loxo dinaa ko def maa ngi leen di di leen gërëm te di leen bopp di leen wax ni échéance électorale yi ñëw na xam leen ni président la Macky Sall moo fi nekk te loolu lépp maa ngi koy def sous le parrainage de mon ami et frère de de de ma de mon référence qui est le docteur Cheikh Kanté di tey fu président de la République taxawee moo fa taxaw di bàyyi fa le président de la République donc moo ma jox mission bi ma koy doxal ni moom mu ngi Sénégal gépp ne newul Thiès kese fépp la nekk Thiès nag kenn moomu ko. Sénégal kenn moomu ko docteur Cheikh Kanté li ko ñor mooy président de la république li ko ñor mooy askanu Thiès donc docteur Cheikh Kanté ñëw na pour ànd ak man pour jàppale ñu ci mission bi ñuy def maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.